ila yawmi yaqumu naasu li rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi dal leen jàmm ci fukkeelu jotaay bi ak juróom ci silsile bi nga xam ne mooy alxajjaaj ibnu yuusuf assaqafi démb nag waxoon nañu alkaarisa bi nga xam ne xew na di musiba mu mag boo xam ne jullit ñi léegi ñi ngi xeex ci seen diggante bu njëkk ñoom dañu doon xeex ak ñi nga xam ne duñu ay jullit ko demee ni Rotteville nga xam ne mooy xeex boobu ñu mujjee def gannaaw gannaaw gi nag xajjaaj leetar bu tàng boobu nga xam ne bind na ko Abdirahman ne ko dara taxul nga def lii illa li annaka anta jubbint <coughs> yow daal tàppet kese moo tax nanguwoo continuer xeex bi ca Rotteville waaye boo continuer wul xeex bi dinaa la folli dinaa fal sa rakk di Saïd ibnu Muhammad ibnu Ashhal boo continué wul xeex bi dinaa la folli fal ko ab tàppit nga waxoon nañu démb ne bi leetar bi yeggee Abdourahman dafa jàng leetar bi ci kanam soldaar yëpp soldaar yi nag loola métti leen ci lu tax xajjaaj di bind leetar bi xajjaaj nag lii nu mu ko mën a dalee man jaaxal na ma ndax xajjaaj ku ku ku muusoon la yeewu am xel lool xaw euh, lii nan la ko mën a dalee waaye ku ne xam na ne digganteem ak Abdurahman ibnu Muhammad al Ashas seen diggante neexul woon kon bu ne ko arrêté naa xeex bi loolu dina métti xajjaaj léegi nag euh, ñoom wàññeeku nañu armée ba yëpp jaysh ba wàññeeku nañu war a jëm ci Basra pour xeex ak ki nga xam ne mooy alxajaaj ibnu Yusuf waxoon nañu ne ñoom nekkoon nañu euh, arbaina alf bi ñu déggee ñu ne euh, Muhammad kii euh, <coughs> euh, Abdurahman mi ngi wàññeeku waaye nag dafay xeex seeg xajjaaj ndax ñoom génn nañ ci xajjaaj jaayante wuñu ak moom ñu bëree bëri dañu ko fekk ci loolu fu ne la mbooloo di bàbbee di daw di ko fekk ndax sonn nañ ci xajjaaj xajjaaj sonal na leen lëjal na leen lakkal na leen ñoom bu ñu déggee ñu ne am na koo xam ne nii fipp na koo xamante ne bii def na coup d'état fipp génn ci xajaaj loolu ñu bëree bëri dañ cee kontaan tax mbooloo mi fu ne lañ doon bàbbeekoo di dem di ko fekki ba am na ñu wax ne am na lu mat salaasina alf ñoo xam ne nii bàbbeeku nañ feneen pour fekki ko dooleel ko léegi nag mu war a xeex <coughs> ak alxajaaj ibnu yusuf boroom xam-xam yu bari bari nag am na ñu wax ne basra tund woowa am na lu mat juróomi téeméeri boroomi xam-xam ñoo xam ne dañoo daw dem ànd ak abdirahman ibnu muhammad al ashas dem ànd ak moom bàyyi ajaaj fële lu mat juróomi téeméeri boroomi xam-xam bokk na ci rek saïd ibnu jubayr kooku rek dayoon na saïd ibnu jubayr ku ko xamul dégg nga ko dafa demoon ànd ak abdirahman Euh, Amir ibn Abdillah al-Shaabi ku ko xamul dégg nga ko borom xam-xam bu mag te borom borom xam-xam yooyu nag bokkuñu ñun li ñuy tuddee boroom xam-xam ñun dañuy gis al ax Jibril bu jàng benn Laxdari ak Ibnu Ashir ñu ne ko boroom xam-xam nga déedéet ñi ay kàngam la ñu woon yu mag xool Saïd ibnu Jubayr al mujtahid mutlaq mu dem ànd ak ki nga xam ne mooy Abdurahman ibnu Ashas euh, waxoon nañu ne Anas ibnu Malik moom ñëwul woon mag la woon waaye bi mu ko déggee nee nañu daana soññu nit ñi pour ñu ànd ak Abdurahman euh, Ata ibn Rabah ñëw na ànd ak Abdurahman Ibrahima Anaqi <coughs> ñëw na ànd ak Abdurahman Muslim ibnu Yasaar kii boroom xam-xam bu ponkal la woon bu nekkoon Basra ñëw na lu mat juróomi téeméeri boroom xam-xam laa wax de ba mu des rek alxasan al basri moom ñëwul woon ndax bi ñu ko waxee dafa ne xajjaaj fitna la boo xam ne yàllaa ko nattoo nit ñi fitna yàlla nag ak nattu yàlla bu wàccee ci xeet nit ñi dañoo war a torox lu jéggulu yàlla yàlla jëlee ko fi waaye mbooloo mu bëree bëree bëree bëri bàbbeeku nañ fu nekk dem fekk ko ca mbooloom léegi nag bi xajjaaj yégee loolu xajjaaj ibnu yuusuf bi mu yégee ne abdurahmaan folli na ko weddi na ko jël na soldaar yépp war a jëm ca Basra pour xeex ak moom Hajjaaj nag àddinam tukki toogatul taxawatul daal di gaaw bind leetar ci saate yëgal ko doomu ndeyam muy euh, almuhallab ibnu abi sufra ibnu abi sufra yëgal ko ko nga xam mooy doomu ndeyam kii nag ku baax la ku sell la njaboot gu sell la ko yàlla may njaboot gu baax la am gannaawam mu daal di ko koy yëgal li nga xam ne moom la Abdourahmane def daal di bind leetar Ajjaaj ibn Yuusuf bind leetar daal di yónnee patron di Abdul Malik ibn yëgal ko li nga xam ne mooy musiba bi nga xam ne xew na fii nii ci al Iraq euh, Abdourahmane bi muy ñëw ak mbooloo mi ba cay yoon wa mbooloo mi dañoo taxaw ne ñun de bu fekkee ne weddi nañu Xajjaaj inna xal ana in inna xal'ana lil xajjaaji xal'un libni marwan ñun bu ñu summeekoo ci xajjaaj loolu mooy summeeku ci abdul malik ibni marwan ñu ne xajjaaj kese xajjaaj du tus alxajjaaju laysa bi shay xajjaaj kese du dara léegi ñun bu ñu jugee bu ñu euh, summeekoo ci xajjaaj loolu nag nañu xam ne mooy summeeku ci euh, abdul malik ibni marwan léegi fa jaaluhuma jamian ñoom ñëpp nañu leen bàyyi ñu daal di euh, summeeku ci abdul malik léegi nag mbir mi gën naa garaaw ndax léegi abdurahman dafa samp léegi moom ne moom mooy buur dafa samp boppam léegi mu nekk xalifa xam nga bu njëkk dañu leen wax ne rek moom génn nañ ci xajaaj bàyyi nañu xajaaj léegi nag mbir mi gën naa garaaw dañu ne dañuy bàyyi xajaaj naka noonu dañuy bàyyi waale ki nga xam ne mooy abdul malik ibnu marwan waaw nañ ñu dimbale ndax bu ñu enregistré bu ñu supprimer dara dafay dagg nañ ñu jàppale ba ñu pare bi nga xam ne soldaar yi yëg nañu loolu ñoom dañoo ñëw jaayante jaayantewaat ak seen euh, amir amir bu bees bi ñu am mooy abdirahman ibnu muhammad al ashas wa jaddadu al bayata libni al ashasi fa baayahum ala kitaabillahi wa sunnati rasulihi ñu jaayante ak moom ci alquran ak sunna wa xalci a'immati dalalati ñooy xajaaj ak ak abdul malik ñu ne nañu sumeeku ci ñoom ba seet wécci daal di jaayante ak ki nga xam ne mooy seen amir bu bees bi bi xajaaj yégee lii wax nañu ne dafa bind leetar ci sensé yëgal ko ki nga xam ne mooy euh, euh, doomu ndeyam di almuhallab ibnu abi sufra kii nag ku am xel la lool bi mu yëgee lii moom dafa bind leetar ci sansir wa xajaaj na ko xajaaj diglu leen leetar bi nga xam ne moom la almuhallab ibnu abi sufra wax xajaaj parce que bi mu yëgee lii dafa jël matuwaayam dem gëstu li ñuy wax ndax am na wala déet bi mu gëstoo ba xam ne loolu am na mu wax xajaaj na ko xajaaj ama baad fa inna ahla al iraqi qad aqbalu ilayka misla misla saylil almunhadiri xajaaj waa iraq ñi ngi bàbbeeku wut la ñi ngi mel ni taw boo xamante ni bii dafay walangaan ndox mu am doole bu jëlee benn yoon kenn mënu koo baare ñii ma gis nii jël nañu décision jëm ci ci yow laysa shay'un yuradduhu ataa yantahi ila ila qiraarihi laysa shay'un amul dara almuhallam moo wax a jaañ ko ñii ma gis nii laysa shay'un amul dara yu rodd yarudduhu lu leen mën a tee atta yantahiya ila yi lu dul dañoo yegg fañ bëgg jëm mu ne ko xajaaj li ma lay digal bu fekkee dag may laaj sama xalaat yow ak say soldaar na ngeen génn basra bàyyi leen ñoom ñu ñëw ba agsi ndax ñii dañoo namm seeni doom namm seeni mbokk namm seeni jigéen namm seeni waa kër te heure boo leen teree ñu dugg basara danga gis xeex boo mës a gis dañ xeex ak yow ba nga yaakaar ne ñii doole ji ni amuñu ko xajaaj maa ngi lay digal na génn basara yaag say soldaar bàyyi leen ñoom bu ñu ñëwee foon seeni doom kaf ak seeni njaboot soo paree nag booy dal ci seen kaw nga door koo def fa inna allaha naasiruka alayhim insha allah yàlla dina la jàppale ci loolu bu soobee yàlla xajaaj bi mu gisee lettre bi almuhallab wax ko xajaaj dafa ne déet déet xajaaj ne déet xalaatuma ko laa wallahi ñoom kay dinaa jël sama armée daw gatandu leen ñu daje ci àll bi xeex man ak ñoom ñoom duñu dugg basara lu dul naaki siina ruhusihim lu dul dañoo njett seen bopp dinaa leen duma ceene leen duñ dugg Basra mukk lu dul dama leen duma la nga xam ne moom la ko almuhallab wax xajjaaj jëfeewut loolu almuhallab daal bind leetar yónnee ca abdirahman ibnu muhammad ibnu ibnul ashas daal koy woo yaddacuuhu ila zalik mu daal di koy woo jëmee ko ci jàmm gannaaw loolu mu bind ko leetar ne ko almuhallab mooy bind mu ne ko innaka yaa ibna al ashxasi ibnu al ashxas maa ngi lay nuyu mu ne ko qad waddaata rijlaka fi rikaabin tawilin aqi ala ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allah allah unzur li nafsika fala tuhlikha wa dimaa'i wa dimaa'i almuslimina fala tashfikha wal jamaati fala tufarriqaha wal bay'ati fala tankusha fa in qulta axaafu allah xaq fa in qulta xaq fa in qulta axaafu nnaasa ala nafsi fallahu axaqu an taxaafaw min annaas fala tucarridha lillahi fi safaki dimaai aw istixlaali muharramin wassalaamu alayka xoolal leetar bu rafet bi moo tax ma ne kii moom sama xarit la almuhallab ku am xel la ku baax bind leetar yónnee Xajjaaj bind leetar yónnee Abdurahman ne ko Abdurahman war nga gaal goo xam ne amul fu muy teg nga sa tànk foo xamante ni bii xamoo fan lay yem maa ngi lay dénk na nga alerte ci lii nga bëgg a def ragalal yàlla ci dereetu jullit ñi lii nga nar a def nii dereetu jullit dong ñoo ciy tuuroo ay jullit kese ñooy jàkkaarloo di xeex jamaa fexe ba bu mu xo bu sa loxo. jaayante bi nga defoon fexelu bul noot sa loxo bul tax xeetu muhammad tàqalikoo ngir yow bul tax deret yi di tuuru ndax yow maa ngi lay woo nga ragal yàlla dellusul ci li nga nekk maa ngi lay ñaata nga dellusi bul xotti orma bul ara bul dagana yàlla xaraamal lii nga nar a def nii fitna kese la nar a jur ne ko nag wasalaamu aleyk abdurahmaan bi mu jotee leetar bi taxul mu dellu gannaaw taxul mu dellu gannaaw ne moom li muy lim nar comme xajjaaj moom moo nekk mbër ci kaw suuf ñoom faaw ñu wan ko seen doole bi mu jotee leetar bi daal di koy jàng yëgal nit ñi ne leen almuhallab ibnu abi sufra parce que moom nag li mu uuti lekk li ko uuti lekk xajjaaj mooy lu ñu ko wax rek mooy day day dajale mbooloo mépp ne leen lii ak lii lañu wax lii ak lii lu ngeen ci xam ne almuhallab ibnu abi sufra moo bind leetar bi lu ngeen ci xalaat ñu ne ko déedéet faale wuñu ko wuyu wuñu ko ñun koy liñ bëgg dañ koy def léegi xajjaaj jël na ay soldaara jugee na Basra Abdirahman jugee na ca Turki ca Rotibil wala jëm ci Basra ki génn Basra war koo gàttandu ñu war a tampoo nag war a xeex foofu xeex boo xam ne ci diggante jullit ñi lay doon Abdul Malik ibnu Marwan Abdul Malik ibnu bi nga xamee ne yëg na lii leetaru xajjaaj bi agsi na ci moom nee nañu dafa toogoon ci kaw lal bi waaye dafa ne pëccët daal ne musiba am na waxte wax na dëgg nag musiba xew na ndax lii nii kenn xamul ñaata la Abdurahmaan yore ci mbooloo xajjaaj yore mbooloo war a booleeg mbooloo mi ko Abdul Malik ibnu Marwan soldat yi mu ko war a dool dolli renforcer ko ñoom ñépp nekk ay jullit war a jàkkaarloo di xeex xajaaj départ na ak soldaaram abdil malik yónneegul soldaar euh, abdirahman départ na ak i soldaaram léegi nag ñaari soldaar yi war a daje bi ñu dajewee ba tàmpante xeex foofu xeex bu métti nee nañu nag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak abdirahman rey nañu rey nañ ci ñoom ñu bëree bëri waaye nag ñoom ñu mujj gañe xajaaj ndax xajaaj dafa jël ay soldaaram daal di ne man duma toog kenn di ma fekk si di xeex ak man góor dëgg duñ ko fekk si bu yégee ñu ne nit ngi ñëw di dal ci sa kaw da ngay génn dajee ak moom xajaaj génn ak mbooloo mam daal di dem tàmpante ak kii nga xam ne mooy Abdourahman bi ñu tàmpante Abdourahman gañe ko duma ko dumu yu métti xajaaj daw daw yu metti ñu jàpp leen rey ci ñoom ñu bëri ñii tamit ñu rey ci ñoom ñu bari ñëpp ay jullit lañu rey ci ñoom ay téeméeri téeméeri nit ñoo xamante ne bii daanu nañ keroog ñu mujj gañe xajaaj xajaaj daw làqatu ca saawiye ba ña mu àndaloon daw bi bi ñu dawee nag Abdurahman jël fas yi jël armée bi topp leen ñañ ci jot ñu rey leen ñenn ña daw dem làqatu bi ñu dawee làqatu ji xajaaj daal di wax ne nañu gas xandax comme xaswatu euh, xaswatu euh, xandax bale amoon ci yonent nañu gas ba nga xam ne ñun kenn du mën a agsi si ñun daal di jël xaalis bu bari daal di koy yónnee ki nga xam ne mooy soldaar yi pour ñu gën a sawar ñu gën a kontaan xajaaj gañe nañ ko ci xeex bu njëkk bi waaye nag taxul mu bàyyi abdul malik ibnu marwan bi mu déggee ñu ne gañe nañu xajaaj abdul malik daal di ne ah catastrophe am na léegi daal di woo doomam abdul malik ibnu marwan dafa woo doomam di abdullah ibnu abdul malik ibnu marwan woo rakkam di muhammad ibnu marwan jël armée bu mag yónnee ko ne leen ne dem leen ngeen jàppale ci xajjaaj ñu ne ko abdul malik tee ngaa def nànk ñun de bu fekkee ne man am nañ ci kàddu li ñu bëgg nga def mooy abdurahman ibnu assas bu fekkee ne xajjaaj kese la bëgg a wàcc follil xajjaaj nga fal ko moom su ko defee nga fekk dereetu xeetu yonantu bi lii ñu nar a def nii comme lii dee dee nañ ba pare xajaaj gañe nañ ko te ay jullit ñoo ci nar a dee tey ngaa folli xajaaj jàq ko fële abdirahman bu fekkee ne moom la ko métti mooy xajaaj follil xajaaj fal ko abdul malik ne ah xalaat bu baax eh sa xalaat bi baax na abdul malik ne ok xalaat bu baax a ngi nii daal di bind leetar yónnee abdirahman ibnu muhammad al ashas ne ko bu dee xajaaj kese moo la métti folli naa xajaaj fal la xoolal fu la neex mu ne ko xoolal foo bëgg fu la neex ma fal la fa ak noo ko bëggee yaay wax noo ko bëggee rek ma fal la mbokk yi fii lañuy ñu teg suñu loxo ba suba ak jàmm ñu xool ndax Abdourahmane day accepté loolu wala ndax dafa am leneen lu nar a xewaat dana yàlla yóbbu ñu ci suba asalaamaaleykum wa rahmatullah wa